dal leen ak jàmm ci leeral point net ba tey ci xatam gu njëkk ci leral point net ñu ngi xëyee li nga xamante ne moom mooy réchauffement pour les législatives du 31 juillet Abdoulaye Wade annoncé à Dakar naka rek daal élection législative yi ñu jëm muy 31 juillet Abdoulaye Wade di ancien président de la République du Sénégal moom mi kat daal dañoo wax ne dana ñëw fii ci Ndakaaru ngir rek daal jiite liste gile gannaaw daal ki nga xamante ne mooy Abdoulaye Wade mu am rek ci toll ci 95 ans moom la ñu annoncé ci tête liste locale yi ñu jëm daal mu jiite partem gile naka noonu rek daal ñuy daal di xamle eh, campagne gile fii la koy fekk ci biir ndakaaru ci ay sources yu wóor itamit di fàttali li nga xamante rek daal mooy candidature googa kenn xaaru ko woon maanaam rek daal dafa bett ñu bëri waxuma lak nag mu doon tête list liste googa loolu lañ daal di xamle naka noonu rek daal xëy na ci ab contexte gi nga xamante ne moom mooy ñëwaat ki nga xamante ne moom mooy Karim Wade di doomam jile fii ci Sénégal loolu nag daal ci ay supposition maanaam ay hypothèque dong Abdoulaye Wade daal di ñëw ngir rek daal diriger li nga xamante ne moom mooy liste googa maanaam moom mooy tedd liste gu ñu daal di tàbb ci loola waaye tamit ñu daal di xamle ci élection yi ñu jëm muy 31 juillet prochain yi waaye nag ay débat yu bari jóg na ca maanaam kàddu yu bari jóg na ca jëm rek daal ci loola ngir xamal ni loolu kat dañ ko musta gis ki nga xamante ne c'est un ancien président de la république fu mu ne nii muy jongante ci ay élections législatives yi non seulement mag la waaye tamit mësuñ koo gis c'est du jamais vu loolu lañ daal di xamle naka noonu noonu rek daal ñu xam le Abdoulaye Wade mii moom nag li nga xamante ne moom mooy liste bi moom mii moom mooy tête de liste bi waaye tamit ñuy xam le li nga xamante ne moom mooy opposition contre Macky Sall waaye tamit ngir rek supposer li nga xamante ne moom mooy retour de Karim Wade waaye depuis boobu ba tey ay polémique rek daal maanaam ay hypothèque dong la waaye amul benn confirmation que Karim Wade daal dana daal ñëw gannaaw giñ ko annoncé mu doon rek li nga xamante ne moom mooy candidat à la présidence yii di ñëw nga xamante rek moo a jàkkaarloo ak Macky Sall waaye nag moom nag depuis boobu ba tey mu ngi Qatar waaye tamit ñu xam ne moom nag amul leneen lu mu doon lu dul ab candidat virtuel ci kanamu Macky Sall wala sax daal li nga xamante ne moom mooy ñëwam mu neex ko wala mu naqari ko en tout cas war naa xoolaat bu baax a baax li nga xamante ne moom mooy avenir am maanaam avenir am ci politique naka noonu rek daal ñuy daal di xam ne candidat désigné bi nga xamante ne rek daal moom moy PDS ci élection yi ñu jëm muy présidentielle 2024 yi moom daal la ñu daal di xamle waaye tamit ñu xam ne li nga xamante ne moom mooy Karim Wade moom nag dañ ko condamné woon six ans de prison ñu daal di rek daal confisqué li nga xamante ne moom mooy alalam maanaam lu mu am waaye tamit ñu daal di ko amende ci lu toll ci 138 milliards ci francs fa naka noonu rek daal décision gile ak paiement bi nga xamante ne mooy ab somme de 10 milliards gannaaw rek daal giñ ko prononcé ci ndoddam